pile yéenekaay bi talaata fanweeri fan ci weeru mai ca la tàmbali waxtaan yi waaye ñi ca bokk ñenn ci ñoom di waa Parti démocratique seen bëgg-bëgg bi ñu bëgg waxtaane ci waxtaanoo moo di révision bu procès bu seen waa di Karim Wade bi ñu gàntalee waxi amnistie loolee l'observateur mi ngi laaj ndax du am ay jeexantal ci élection présidentielle yi ñu bëgg def ci réew mi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 leen ko nangulee Babacar Fall gis ne bu boobaa juróom-ñeenti weer yi dox suñu diggante ak wote présidentielle yi dina gàtt gàtt goog buñ fi bëggee àtte Karim Wade bu nuppi bëgg fi organiser ay élection présidentielle du mën a nekk ba tax reporter élection présidentielle yi 2024 yi lu jar a bàyyi xel la Moundiaye Cissé directeur exécutif bu ONG 3D ne waa l'Observateur waxi reporter ay élection présidentielle ci réew mi jarut a jëme kaw duñu nangu mukk ñu fiy reporter ay élection présidentielle ndax ay waxi procès dialogue bi journal Tribune mi ngi ñuy fàttali ne fanweeri fan ci weeru mee ci lay tàmbali dialogue dil la ko yéenekaay bi tuddee ba di ñu xamalit ne ñu bari ci ñu fare ci opposition bi lànk nañu ne duñu dem ca dialogue ba boole ceekit ba léegi kenn tane wula ci lan la waxtaane ca dialogue ba Samuel Sarr ak i gaayam di waa LSS libéralisme social sénégalais lu mandat nee nañu ñoom nee nañ dem bokki ca dialogue ba président de la république Macky ndax dafay bokk ci wotey yi am déet réew mi quotidien bind na ne njiit réew mi Macky Sall ma ngay wut ndëgër lay ci wàllu yoon mu di argument juridique ba tey jii bu taxawoon ne day samp défense am dooleel tribune nañu wuti na ab juriste français ngir forcer nit ñi troisième candidature ak lu ko waa mën di wax la Sénégal mi ngi ñuy wax ne kii di Cheikh Tidiane Gadio wax na ci mbirum troisième candidature bu Macky Sall Cheikh Tidiane Gadio président Macky Sall bi mu nekk mooy deuxième mooy dernier lam Sud Quotidien nañu Cheikh Tidiane Gadio bloqué na Macky ci waxi troisième candidature bi Ousmane Sonko mi war a wuy ji yoon suba

Ousmane bu nangoo dem wuy ju yoon nit ku normal bu boobaa du gis benn force de défense et de sécurité waaye su bëggee turbale ordre public bi état bi du ko nangu ay kàddu yu mu yëkkati moom Abdou Karim keroog àjjuma ci ndaje mu task force républicain doon def ca Grand Yoff ñu romb Grand Yoff dem ca front seeti Walf Quotidien président bu parti Pastef di Ousmane Sonko borom beñe dugub bi la xëye waxtaan yu mu def keroog ca télévision Walf Fadjri ku waxul dëgg dafay kàcc keneen ku mu waxal ba mu xëy di ko tontu direct news nee nañu moo di soxna si di Victorine Ndeye Victorine Ndeye nee na xam naa ne Ousmane Sonko dafay kàcc moom xam na ne dafay kàcc te xam na ne man xam naa ne dafay kàcc te terewul muy kàcc keneen ku àndul ci doxalin Ousmane Sonko yéenekaay bi nee nañu mooy Thierno Bocoum moom li mu gis moo di Sonko daanooti na ne fañ ko doon xaar ak fa mu génn du benn bennub yéenekaay bu xëy di Idi ak Thierno Bocoum wulli nañu Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu doon ku lool seul contre tous attem bi war a am suba diggam ak Adji mu di procès coowal mbës mi ci audience spéciale enquête dina kay nañu moom Ousmane Sonko moo ca yore ci gël guyam mel ne na ko xaw teggi tànkam ci désobéissance civile gi mu nekk donte nag teg na ay conditions suñu bëggee mu dem tribunal résistance gi mu woote enquête dina kay nañu taxul yoon dellu ci ginnaaw ginnaaw loolu nañu wax ci neexul ba neexul waaye waa groupe Futur Média bokkuñu ci firnde li mi ngi ci xët mu njëkk l'Observateur kuréel gi ëmb journaliste yu ndaw yi ci ay at di convention des jeunes reporters du Sénégal gala bi ñu doon def ngir doon ca sargal reporter yi gën a taqe ci réew mi l'Observateur nee nañu prix yi ñu tegoon yu ca bari groupe Futur Média ngar daajoona ko ba noppi nag dëggal jiitu gi mu jiitu ci réew mi prix meilleur reporter presse écrite Aïcha Goudiaby bu l'Observateur moo ko jël Aminata Ba bu RFM gàddu prix meilleur reporter rajo yokku leen rajo yi ñu des ak l'Observateur xooli la xew ci ca Tamba ubbil yéene kay yéenekaay benn waay moo fa doon tuumaal jabaram ne jabar ji dafay njaaloo tax mu jàpp jabar ji di ko yedd ak di ko waar ba jabar ji far xaru abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew